wala après mois de mars mois de mars bi mois de mars bii duñ ko génn soobee yàlla mars duñ ko génn te Ousmane Sonko ak aji taxawuñ ci baar bi. information bu soobee yàlla ah, du ma procureur waaye xam naa ne mois de mars bi incha allah duñ ko génn te aji saara Ousmane Sonko attention. mois de mars Sonko mën na ne du dem di jaay doole di dof dof lu ba leneen fekk ko ci mais procès bi moom bu soobee yàlla. mois de mars bii ñu jëm dinañ leen àtte bu soobee yàlla jéyee mënu fee am de ñu duma leen rek comme démb rek duma rek fii moom amatul négocier yii ñuy def nii yooyu passé na de yi xewoon nii yooyu à l'époque la léegi kay dem wujji ci jàmm wala duma kon da ngay dëggal li njiiti réew mi wax ne li fi amoon dootu fi amati bu fi amaatee ma ba ko ak ñi mel ne man parce que damay xam ne yorutuñ réew yorutuñ chef de l'état ku yebu nag kon wuti sa cartouche day ma fajal sa bopp. kon looloo tax xanaa ñu dem fële ay kii fil électrique ay ay sentinelle lañ waroon a teg ci kaw jox leen sax cartouche ku jege miir bi ñu fetal la. Ah, fii amatul négocier amatul lu ñuy wër lo réew mi dañuy mën a tegu ci yoon ñi mën a tegu ci yoon toog ci réew ñi mënut a tegu ci yoon abal ñu réew mi wala ñu sàkkal leen pexe parce que réew mi ñun ñoom ñoo ko bokk duñ nango benn benn minorité ñëw di ko yàq. mais menaces wu ma dëgg laa wax. doom kenn kenn taalu ci kër baayam. ña ci génn yëpp dañoo génn seen kër baay bàyyi fa seen matériel baay ak seen matériel yaay dem di taali yi fi jàmbur loolu réewande la loolu du acte républicain képp ku koy def boo ko doo ci réew mi ku man tey d'accordoon naa ñoom kenn ku ne génne sa mat laa yaay wala sa mat laa papa sa bagage yaay taal ko commencé sa kër doog a génn mais da ngay bàyyi sa kër bàyyi sa bàyyi yori sàkket nga dem tal immeuble jambar parce que da nga kaa ñi e ñi nga gis ñi taal ak toj yëpp seen bàyyi amul kër bi baax kon ñoo dañoo soxor mënu mënuñoo avancer lu rew mi ko ci laaj projet Pastef du lako wax xamuñu dañoo top Ousmane Sonko aveuglement ni di dof dof loko bandi bandi bandi